yow gëj nga fi ah. foo nekkoon fan yi aw Fall on fait un gros coucou. Fall Ndiaga Yaram. voilà donc euh, donc euh, ñu dem ci euh, li nga xamante ni rek moom mooy Ada Fass ginnaaw sanction bi nga xamante ni moom la ko waa CNG teg. ñu gis ni euh, dañu ko teg un an euh, de suspension un an yoo xamante ni du dugg ci làmb ji du bëre euh, Modou Mbaye nag daal di ci wax wax yu doy waar yoo xamante ni amaana bett na ñu bari en tant que reporteru làmb mhm. mais en tant que koo xamante ni wax dëgg yàlla taamuñu du dégg ay kàddu yu mel nii ci gémmiñam donc nettali nag ci gémmiñu boroom la dàkkee ñu déglu Modou Mbaye te ñëwaat ci plateau bi beneen bi Ada Ada Fass dañ ko sanctionné aj ko un an man de je suis li ko waral gis nga Olof Ndiaye danaan buñ la rusul da ngay ànd ak ku nu rus te keroog président CNG wàcc na vice président Maïssa Ndiaye wàcc na keroog amul ko wàccul Abdou Aziz Ndiaye wàcc na Cheikh saar wàcc na ñëpp wàcc nañ pour la nga gaaw say gàllaaj dëgg la gàllaaj yi da nga war a def waaye mi ngi nii tey aj nañ la un an est-ce la jox gàllaaj yi dinañ la jox nga bare est-ce que sëriñ mën nañu fexe nga bëre kenn mënu ci dara amul ñaan bu mën a tax nga bëre te CNG nanguwu laa aji amul ñaan bu mën a tax ñu aji la te un an yi matul maanaam affaire galaaj yi ngeen bëgg a jël yóbbu ko ci du affaire bi Ada ni ngay galaajoo dafa ëpp ci mbër mu ndaw kenn genneewu la galaaj baaxul mais yi ni ni nga gëmee galaaj sax dafa ëpp ci mbër mu ndaw affaire bi entraînement la aada du galaaj de billaahi entraînement la balaa nga ko doon xam ñu boole ma man ak yow danga may daan parce que amu ma entraînement bi bu ma indi woon galaaj yi ëpp ci àdduna danga may daan parce que amuma entraînement bi mënu ma laa résister kon nag dangay bàyyiwaat xel moo Lo exemple la moo la dàqoon a xëppoo galaaj Modou Lo danaan bëre ba pare di daan di far ay galaajam yow defoo ko mosuñu ko gis yow te jël na loolu yëpp teg nee jël entraînement indi beneen bi Ada voilà donc ñoo ko déggandoo moo du mbay lii mooy réaction ginnaaw sanction bi nga xamante ni waa CNG teg nañu ko ci ndoddul ki nga xamante ni moom mooy Ada Fass muy un an yoo xamante ni un an de suspension la yoo xamante ni du ko bëre euh, Fama Kassé moom moo dafa nekk ci yeneen i yitte yoo xam ne rek dafa euh, daf caa nekk donc pour euh, jëmmal Télé Sénégal donc bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax donc noonu la demee daal moo tax ñëwul tey voilà donc euh, dégg nga kàddu yi nga xamante ni Modou Mbaye bu Bécaye mbay présentateur télévision 2STV yi wax na ko jëmee ko ci Ada Fass mhm. donc mu doon kàddu yoo xamante ni man personnellement bett na ma est-ce que yow doon nga xaar réaction bu mel nii ci Modou Mbaye d'abord balaa ngay ñëw ci réaction bi nga xamante ni def na ko c'est-à-dire waaw maa ngi koy ziar moom Modou Mbaye mm. Baye Fall moom sama waay la sama xarit la mhm. sama waay la sama xarit la ndax euh, maanaam lu bari daf noo boole. Mm. te it euh, maanaam rakkam ki topp ci moom sama xarit benn bakkan nekk États-Unis mm-hmm. di Matar Mbaye ñu dundoo dundoo it lu bari moom it mu doon sama waay. Mm-hmm. sunu papa di sunu xarit ñëpp. Mm-hmm. waaye man sama bar ci kaw maa ngi ñaanal Ada Fass Dakar. ndam li yàlla na ko jig. Dakar ñun aada rek la ñuy topp. kii mooy aada kii mooy aada faas déggoo loolu loolu en soo ko def ansu ansu bamba zéro faute ak ñoom Matar Fall mm-hmm. ak ñoom Fondé ak ñoom Matar Ndiaye Fass tambour major Matar Ndiaye Fass waaw nga gis ansu ci ci kanam te xin gi mm-hmm. ko kii aada kii aada Fass nga dégg xale yi ca kaw toog naan ñun aada rek la ñuy topp Jal Diop Sangobar aada na la yàlla defal jàmm aada Fass nag su ma koy tudd wax dëgg fa yàlla sama way ko ma koy tudd rek sama xel day dem aada Ndakaaru aada Fass aada Fass liñ bokk bëri ñun yéen ñaar waaw aada Fass dañoo bokk mhm. fas ba ba noppi macha allah bokk Fass muy may supporter fas ba noppi mhm. ndax bu dul dara supporteru Fass dañoo bokk Fass kon mhm. aada ñaareel aada di sama mbokku taalibe mhm. aada faas yaakaar Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mhm. gëm ko wóolu ko mhm. jóoriñam ci biir kër gi di miis baax Kara Fall al miis baax sama waa ji nga xamante ni euh, ñëpp xam nañ ni mooy sama idole moom rek laay roy loolu yàlla dogal ko waaye ñu bokkaat ay melo lu ci mel ni Abakara 100 pour cent Kara di lépp Ada Fass Abakara bàyyi soxna maam Fati chéri Maguette. abakra nga xamante ni lépp lu adafas nekk rek suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu ngi ci. Mhm. maa ngi koy félicité waat bu baax a baax a baax aada di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak ndam ñun kontaan naña ah, parce que nag li nga doon moom soo ko bañee day fekk nga gën cee naa. Mhm. ñun nous sommes des Fass wa man Fass laay supporté ñëpp xam nañ ne Eumeu Sène laay dund ci laam. Mhm. waaye maa waaye aada Fass ndeysaan ay Ada Fass ñu léegi nag damay analyser ci ñaar. d'accord. ci Modou mbay kii yee mhm. Modou Mbaye mhm. ba noppi ak Modou mbay moom fan la doon waxee. d'accord ba noppi. Mhm. Euh, que moodu mbay bu dee lii muy joxe conseil la. moom Ada Fass sekk na lu mu ko woowee téléphone jot ko. d'accord bu dee conseil la. sekk ma ak Ada Fass lu mu ko woowee téléphone Ada Fass ko mu waxtaan ak moom ñaa comprendre ci sama xalaat sekk nañ ko te sax sekk nañ ko lu mu ko woowee mu wuyu ko ñaar danga doon def sa émission Bantamba pare xëy na wax nga loo xamante ni loolu ak CNG la wax nga it lu ñu mën a comprendre nee nga kii wax na kii wax na kii wax na kii wax na kii wax na mm-hmm. yaa ngi comprendre kon mm-hmm. loolu CNG la wax nañ waaw ba ci ñu organiser lamb ji buñ nee lamb buñ nee lamb gàllaaja ko waral mm-hmm. lu ci bëri dañ koy def parce que day neexal sax lamb day neexal lamb ah da indi ay butéelam niñ ko ko diggalee noonu la koy defee munoo sonn niñ ko ko digalee. Mhm. rek la ko Ada Fass di defee munu ko defee neneen lu ni ñu ko ko digalee. doy na waar. ba dernière gàllaaju Ada Fass bi guy gi di jat dafa dawaat génn jël poftan di dóor. Mhm. parce que noonu lañ ko ko digalee. kon noonu la koy defee. Mhm. moom buy animé dañ koy jox temps <laughs> moom moo du bay. te du ko tekki. bu temps ba jotee régi dañ koy wax ni jot na. war nga dagg ñeneen dañuy dugg. te da koy def. des fois mu dépassé temps waaw des fois mu dépassé. ñu may ko ko ñu may ko ko. ñu may ko ko comme ni yi war a dépassé seen bouteille ñu may leen ko effectivement. yaa ngi déglu. Mhm. waaye man nag wax ji nag leen na ma ci naqari. muy lan. métti na ma te waru ko woon wax aada du mbëru mbëru mu ndaw kenn aada fas du mbër mu ndaw mbër mu ndaw du daan guy gi. dëgg mbër mu ndaw du bëreeg zarko. déedéet mbër mu ndaw du daan kolifay mbër mu ndaw du daan tafaa mbër nañ nekk ay nit yaaram du mbër mu ndaw kenn hmm. wax nga boo demee bay tëkkale nit naan Modou ba muy bëree ku la wax Modou ngi mystique ba léegi <laughs> nag c'est ça qui me fait Lo Modou Lo ba léegi nga naan Modou war nañoo doy référence nu mu ñu doy référence c'est-à-dire le fait mu ne Modou Lo moo la gënoon a. bëgg mystique waa léegi ba pare naan naan naan ba pare waa léegi naan li nga ba pare naan ay li nga def dafa ëpp ci mbër mu ndaw li nga def dafa ëpp mbër mu ndaw li nga def dafa ëpp yow yaa ko jox li mu ko defee. yàlla yow yaa def Ada mbër mu ndaw. laa jël sa papa El Hadj Bécaye ndax Ada Fass mbër mu ndaw la Ada Fass du mbër mu ndaw non non est-ce que faralul woon bu fa ak ku mu faral dafa am yoo xamante ni man damaa jàpp ni moom. question la de. dama jàpp ni moom ak Ada fas dañoo sekk lu mu ko woowee téléphone bu koy conseillé conseillé ko. léegi CNG bu jëlee seen i mbir. CNG bu jëlee seen i mbir ba tëral ko nag daan ko at loolu CNG la quoi. ñoom ñoo xool parce que nee nit ñi wàcc nañ. Mm-hmm. loolu après CNG ak li fa war a am ak li fa war a am dinañ ko lijjanti. Mm. pour te dire mën nañ dem sax lijjanti bu dee aada day fay mu fay ñu dindi sanction bi bu dee aada du fay ñu xool nan la ñuy def loolu CNG la mais yow pour conseiller aada Fass am nga numéro am maa ko war ci Serigne Touba ne am nga numéro am. ah yaa ngi déglu. maanaam bu dee conseil bu dee bu dee conseil la. Mm-hmm. li ñuy conseillé man conseillé naa aada Fass ci làmb ji. Mm. man sama baat ci kaw. Mm-hmm. prince ma du ma bàyyi ma fen nee naa ko gis naa diw ak diw ak diw maa koy ñaan ci kàttanu Cheikh Khadim mi ñu bokk ndax boobu gu ma fa dem ñu may gis mais na defee nii ak nii man gis naa ne bu ko defee am ndam sama conseil la. waaye toogu ma wax ko parce que se dañ ko sekk nag muy sama waay ci saayir mais dañuy wax en tant que nit. Mhm. Ada Fass du mbër mu ndaw kenn. waaw déedéet Ada Fass du mbër mu ndaw boo buggee mbër mu ndaw nga uti ko mais Ada Fass du mbër mu ndaw. aada ndakaaru aada faas tubaarikàlla ndakaaru aada ndakaaru jël jóob sàngomar mu téye ko ci loxo wax leneen waaye oh, loolu kii ma ko wayoon Ibro Naajo ak yonent bi hmm? wax non non wax leneen donc euh, man euh, personnellement le fait mu koy tëkkale ak Modou et que ñu bari ñu bari dañuy juum ci ci ci di wax naan Modou Lo defatul gàllaaj defatul nangam ak nangam la muy def këram kenn xam ko et que ñun euh, wax dëgg yàlla <laughs> bëgguñu Papis Xarañ Lo maa ngi jégalu dooguma la Papis Xarañ loo mhm. moo yor ay mbiram sama waay la ndax cantam mi sax année maa koy bàkk waaw ndeysaan Papis Xarañ Lo Papis Xarañ waaw xam nga combat bi passé la mhm. dafa taxaw gaa yi naan musique mu ne nañ réglé ñu combat li ñu ci def ci musique suñu ko def Oh, baax na. waaw ah, te moo yor ah, mystique maanaam gis nga gis nga li ah. ngay gis ak li <laughs> gis nga làmb dafa doy waar li ngay gis ak li nga xamante ni moom la nit ñi di jëf bokkul donc nañu ciy bàyyi xel bu baax a baax et moom il est mieux placé pour comprendre ñoom mbër yi nan la ñuy def parce que nag yàgg na ci seen biir et yàgg naa jëflante ak ñoom donc Modou Mbaye euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax peut-être euh, euh, suñu suñu confrère nga mais nag wax dëgg yàlla. man jàpp naa ni effectivement man jàpp naa ni effectivement. soo amoon loo doon wax Ada Fass comme Noreyni l'a si bien nga woo ko téléphone waxal ko sa bopp comme ni nga ko defee woon ci beneen mbër bi mooy. Euh, ay waay damaa fàtte tur bi bëri na ñu ngi koy defal donc di di di wax ci moom la même chose laa ci waxoon muy que ni na ko woo euh, conseiller ko si mieux moo gën euh, donc ñu ngi ñu ngi jaajëfal bu baax a baax a baax Ada Fass di ko féliciter di ko wax ne ko foncel que ce soit ñu ñu suspendre la yàgg nañu fee suspendre ay mbër Ah, nañu waxante dëgg yàgg nañ fee suspendre ay mbër ndax heure yi ñu dépassé ak yeneen ak yeneen donc seen CNG euh, la CNG et là pour ça mais nag yéen mbër yi du leen tee ngeen di def seen seen show du du leen